sabran jamilan mbakke yaa wakiirlu yaa wóolu rabbul arsi maa la wóolu sabran jamilan mbakke yaa wakiirlu yaa wóolu rabbul arsi maa la wóolu sabran jamilan mbakke yaa wakiirlu yaa wóolu rabbul arsi maa la wóolu natt yu rëy booleeg bari jaloore ànd ak guddub tànk la yaa fi demoon ki Kongo fekki sëriñ Tuuba ne ma gongo yaa bari ay te bari jaloore yaa dem barom bu yaa aji umra dem minan dem arafa yaa dem safa dem marwata ak siyaara fil madinati munawwara maneefu laa gàkkal xaraam sawara ahmadu njaay mayoroog ibrahima yaa leen xamal maqaamaam ibrahima ahmadu nga leen tàggoo nañoo funoo siyaare nañ say siyaare tuuba rammu nga leen tàggoo nañoo funoo siyaare tuubaam fab fab yong ba fa rasuulullaahi yot ko sëriñ tuuba damul walaayi fab fab yong ba fa rasuulullaahi yot ko sëriñ tuuba damul walaayi sellat nu ngaw jëkk ci wàllu yàlla fiis fees nga palaas santal te wóolu yàlla sellat nu ngaw jëkk ci wàllu yàlla fees nga palaas santal te wóolu yàlla yow la faraañse teg nattu ci maarabbu ngir xam ne mbat nga xawsu man nga xulbu yoonu murit sempi nga seenu saw des la ñuy giiroo baam yoonu murit tempi nga seenu raaya saw des la nuy giiroo baam idaaya sa buur la gaayi xeñtu fii ba gànnaar naka nga jóg ñu tudd siidil muxtaar jëkk aj Makka ci yoonu Bamba yaay sampiyoŋ ci yoonu Seexi Bamba yaay sampiyoŋ ci yoonu Seexi Bamba yaa war a sant Yàlla ak yonen ba ngir foo taxaw rangoo gëneeli Bamba Bamba takkal na la medaayu baatin amul ku koy tekki ku dul borom kun mbër mu sëriñ tuubaa mënee fu koo daan ma ngay takki ndombaan képp yi diiwaan mbërum sëriñ tuubaa ma ne ma ngay takki ndombaam ci anta njaay wàcc nga am ngam yaaram am ilimaan galliwuloo ci maaram maam anta njaay wàcc nga am nab yaaram am ilimaan galliwuloo ci maaram maam anta njaay wàcc nga am ngam yaaram am ilimaan gàlliwuloo ci maaram yaaram du gam gamloo sa gam baaxaadam wallahi waaju nekk xam na ma